loolu lépp nag di di di lu am solo jàmm ji am ci réew mi itam participer nga ci lu bare bare ci benn réew mi loolu la kon lu ñu war a suuxat la kon lu jamono xat-xat yéen itam ngeen xam li leen ci war xam ne réew mi bu ngeen fi nekkal Sénégal gépp ngeen fi nekkal ngeen xam daraja ak cër bi nga xam ne Tuubaa am na ko ndax suñu kilifa bu baax ga suñu Saliou Mbacké daa wax ne suñu Tuuba dafa wax ne am maanoo di ko ñu tàmbalee ci yemale ñu yemalewut kon ñu ngi leen di sant bu baax ci bi ngeen xamee cër bi nga xam ne màggal gi am na ko ak cër bi nga xam ne Tuuba na ko ndax daaw ku ne xam ne ne xatoon na moo tax sëriñ bi bi ñuy woote màggal bi kàddu yi mu yëkkati woon ci jiite réew mi li mu ko wax ne dimbali ma ci sama taxawaay bi ak lu ko ci mën a fekk loolu nag mooy lu nit ñi ndax xam nañ ne situation bu jafe la ndax ñi nga xam ne ñooy suñu mbokki atibaaw yi mooy médecin yi ak waa kër docteur yéen seen xam-xam may rek lañu mën a gis na ko sëriñ bi waxee ngëm gëm nag dafa dafa dafa dafa dafa xóot li ñuy wax alhimmatu axtaru min as-sayf géej sax mënu ko téye mm. kon loolu kuy jiite ñëpp moo tax Sénégal yombut a jiite kuy jiite nit ñi faaw nga xam ñu ne seen day day seen ngëm fa mu àgg ak xóotaay ba ak wuutee ngëm yi ndax ku ci ne lan gëm kenn mënu ko ca loolu lu am solo la ci xam gi ngeen ko xam